donc noo ngi si question technique noo ngi déglu maître El Hadj Diouf mu posé ko expert bi muy Tafa Gueye. Tafa ñu ne bu ñu wëree nombo. benn mbër. nan la mën a def ba génn ci. ba kenn du ko daan. na wër nombo. ah wër la mais aussi mën na mën na am na ay risques. parce mhm. que gis naa baa booy wër nombo yëkkati. Yékini daan ko. gis naa aussi Pape Mor Lo benn combat ñu war ko nombo mu dugal loxoom ci diggante ñaari tànk waa ji xëcc ko mu daanu ci ginnaaw. waaw def naa compte stade Iba Mar Diop. compte def naa waay keroog man man ma leen tuddee woon làmb ji làmb euh, defe naa Ablaye Fall la woon ma ma tuddee woon làmb ji la kii Fall. Pam Pa Abdou Fall Pa Abdou Fall. Hmm. waaw làmb yooyu làmb yooyu ma ne ko tuddee woon Pape Mor Lo moo daanoon keroog. naa ko jox trophée bi. Me El Hadj Diouf yaa may laaj mbër bu ñu war ndomba. naka lay def ba génn ci naka lay rëcce ci wër ndomb bi naa la ci may rëcc bi naa la ci may aussi daan bi parce que di rëcc rek doyul buñ la waree ndomba action réaction bu njëkk ci ki ñu wër ndomba mooy dafay siggi ba pare téye ñaari loxo waa ji dox nag avancé jëm ci kanam jëm vers les sacs tiire nag son dos derrière ah penché ci ginnaaw dox jëm bu ko defee nag mbagg waa ji ko téye wër ndomba day metti conc yi day metti loos bi nga xamante ne daf ko jël sax teg ko ci njëgi ginnaaw ki nga xamante ne moo moo moo ko woon ndomba dafay metti laa waa ji dina mujj lâcher prise loolu mooy rëcc bi benn bu ci sax bañ yow miy dox rëcc génn ci saag yi am avertissement parce que am avertissement nag jël siwaat bëriwaat parce que yaa ngi ci bu inconfortable ñëwaat bëriwaat moo gën bañ a génn saako yi ba pare ñu daal la bi ko toppaat nag mooy naka ngay fexee ba daal moom mooy wër nañ la ndomba yaa ngi jéem a rëcc mënoo rëcc fexeel daan dañuy indi rek benn ay ay fàttaliku Rock Mbalax le champion de la Médina Pape Sy ko wër ndomba mu jël temps am def action gréco-romaine passage en arrière daan ko mu samp bopp bi samp ñaari oom yi sampaay loxo bi bés bi bu écrit face Pape Sène ba mu ko wëree ndomba daf ko daan aussi même action troisième lutteur moom mooy Reug Reug muy bëri ak Mamadou Ndiaye daf ko wër ndomba daf koy ba taxaw sànni ko mu samp loxo yi mu wër ko ndomba mu def action bu magique daan ko aussi jël bu rafet moom mooy ci biir wër ndomba nag kon Maître El Hadji mën nga ci rëcc waaye bul bul kontaan rek ci rëcc mën nga rëcc ba pare wàññeeku daan donc rëcc bi mooy téye say loxo avancé daan bi moom mooy passage en arrière daan ko donc wër ndomba Maître El vraiment rëcc am na ci daan am na ci. entre un lutteur qui mise sur l'offensive et celui qui opte pour la contre-attaque qui a la plus grande chance pour remporter le gain du combat Tafa ñu ne ci diggante mbër mi nga xam ne moom day song moom moom attaquant la ak mbër moo xam ne moom défenseur day nekk kan moo gën a am chance pour gagner ci xayma mooy bu jëlee mbër bu mel ni yow xam nga yow song nga woon ak Xadim Njaay ay baay booy nga jël mbër mu mel ni. Euh, Mor Fadam wala euh, Lac 2 Lac 2 nee nañ defenseur la day nekk mais loxoom dafa dis bu la dóoree nga daanu donc bu la néegee boo ko song gis naa ne am na seen song na te ba koy song nee naa tànkam boobu mu bàyyi maanaam sama jabar. tànk tànk bi jege na am na seen te tegal naa mu yéene ko te bu koy buy xëcc buy bi Lac daanu waxoon naa ko combat Baboy ak Bombardier ca Thiès xam nga tànk Bombardier traîné rek Bombardier euh, tànk Bombardier Baboy jëli ko. donc kooku donc donc mën nga nekk défenseur mais ci sa défense boobu boo deful ndànk mën nañu fekk par daan la ci mais nag yow yaay expert wax ñu entre attaquant ak défenseur kan moo chance ci march de euh, làmb. yaa ngi may laaj ma ne ci mbedd mi ba mu lëndëm ma ne ci mbedd mi ba sedd bi di ma bëgg rey ma ñëw ci kër gi nag pour terminer sa dernière question mbër mi nga xamante ne dafay attaque ak mbër mi nga xamante ne dafay def contre attaque ñoom ñaar kan mooy ci ëpp chance am ndam nga laajte dama naan d'abord mbër mi attaqué ndax mbër mi attaqué mooy mbër mi am sañ-sañ comme Balla Gaye ni ma ko doon il faut le dire. comme Modou Lo il faut le dire comme Gris Bordeaux faut le dire comme Bombardier il faut le dire ñooñu ma lim ñëpp ay mbëru attaquant lañu. pourquoi kii attaqué ëpp chance am ndam mooy mën na daan ko ëpp mën na daan ko ko sut mën na daan ko ëpp doole ndax tant yaa ngi am cinq ñu attaqué rek da am pour cent am victoire donc attaqué. moo gën fuuf pour yomb ci am ndam que ki nga xam ne dafay def contre attaque ba tey nag beneen pàcc beneen pàcc bi mooy aller boo gis am na retour c'est-à-dire mbër mi nga xam ne dafay attaqué bu dajee ak mu ñor mu xarañ ba mel ni Lac de Guiers numéro 2 wala mu dajee ak mbër mu mel ni Mor Fadam ci ay jamonoom da ngay xaar nga mener sa action ñu bloqué la sa action ba pare contre attaque la daan la. mais toujours rek force dafay des na rek que ki attaqué tout le temps rek mooy chance am ndam que ki nga xamante ne dafay xaar ñu attaqué ko mu doog a réagir donc daal il faut toujours encore favoriser les attaques même en lutte bi ñuy def noonu ci biir avertissement yi ki gën a ki gën a attaqué gën a bougé doomu avertissement mu mais ki toog di xaar pour contrer mbaa muy défendre dafa am avertissement donc attaque daal maître mooy li nga xamante ne moom la athlète bu nekk wax a def pour gagner combat